asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw ba ñu sante yàlla mi ñu may jataay bi ñu koy am ak yéen eh, ci seen site internet bu mag bi muy seen Senclic TV di julli ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci ñun mu jàngal ñu diine ba mu leer naññ ba képp kuy wax ci diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa maître moo la ko jàngal te yàlla moo ne wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu di ko wàccee ci ay ñoñam ak ay saxaabaam ak képp ku leen topp ba yàlla di pencoog ay jaamam di nit yëkkati nuyoo bu sell bu tedd di ñaan li noo bi làmboo yàlla na ko yàlla dotti ci jëmm yi way déglu yi ci Senclic TV site internet bu mag bi ci àddina wërngal këpp di leen wax asalaamaaleykum wa laaj nga laaj bu am solo ndax uh, diine diine lislaam diiney xam-xam la boo xamut nga laaj ñi xam bu demee ci téere muy tuddee al axdar yi rek mi ngi koy wax wa yasalu al ulama wa yaqtadi bil muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne day del laaj boroomi xam-xam ndax loolu aaya alquran la fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun yàlla mu ne laaj leen ñi xam bu yére xamu leen lu moo lumu rek ku ko xam ko ko waaye bul dem ci ki ne nii xamu ko nga bëgg kaa laaj am xam-xam te yàlla nee na ndax ki xam bokk nak ci xamut duñ bokk mukk hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun waaye booy topp nag booy roy na nga roy ki topp sunna ndax nit mën am xam-xam di wax xam-xam boo ko laajee mu wax la xam waaye bu jëfee du jëfee xam-xam kon ki ki ngay roy mooy ki nga xëy dafa topp sunna yonent yàlla Muhammad kon laaj nga ñu laaj bu am solo moo tax ma jiital laay yooyu pour wane ne laaj xam-xam dafa am solo bu ko defee nga mën a jottali laaj bi ci képp koo xamee ni amoon nga laaj boobu comme yow ko defee nag ñu tontu ci kem sunu xam-xam macha allah duwun na nag dañ ne li ñu wax loolu rek moo fi ne ndax école yuruntu bi école la boo xam ne macha allah dafa bëri ay branche bëri ay dégg waaw bëri ay niveau yoo xam ne loo tax da ngay wax ne rek li may tontu mooy kem li ma jàng ak kem sama dégg ak kem li ma xam di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir ci barki yàlla Muhammad dafa laaj ndax euh, jigéen mën naa nekk di wëy wala muy jàngal Qur'an ci kaw wala baatu jigéen daal lu tax ñu ne awra la ak lu ko waral euh, xam nga diine ji diine yi borom bi subhanahu wa muy diine lislaam da yàlla ne inna diina inda allahi lislaamu diine fa yàlla mooy diine lislaam ne wa man yabtaqi xayral islaami diinan falan yuqbala minhu képp ku jàpp diine judu diine lislaam yàlla du la nangul la nga ca jëf kon kenn du wax ne man nii laa ko gisee wala nii laa ko bëggee déedéet ni ngay defee mooy ni ko yàlla waxee ni ko yonte yàlla Muhammad pratiqué jàngalee ko ay saxaabaam saxaaba yi jàngalee ko taabiina yi loolu diine moo tax boo ci nekkee dafay mel da ngaa jënd carte membre carte membre nag ku ko jënd si association dafa am ay li ñu tuddee churut mooy ay charte yu la tënk yoo xam ne da koy remplir charte yooyu bu dee tënku la yow na nga xam ne génne nga sa bopp ci association bi l'islam it association la boo xam ne tabaarakallaahu daye da ngay nangu atte nangu lum digle nga def loo man lim tere nga bàyyi lépp ndax yàlla moo jox dérogation boobu yonentu yàlla Muhammad wala prérogation ne wa ma aataakum rasulu fa xudu lu leen yonentu bi dikkal rek jël leen waaye lu mu leen tere baleen wa ma nahaakum anu fantahu loola waral boo demee kii kutubu fiq muy euh, jurisprudence islam xëy ni mooy atte l'islam ci doomu aadama yi ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu jëflante euh, loolu rek la lu nga seq ak sa borom loolu la ñuy tuddee al ibadat muy jaamu yàlla yooyu duhut nu la neexee nga koy defee ci njëkkeel ci laab laab rek dafa am luñ la ndox mi moo mën a laab moo mën a laabal waaye ni ngay jàppee duhut nu la neex ngay dafa am nuñ la tënkee am loo jiital am yooyu mujjee waaye duhut nu la neex rek jàppee julli kadalika koor kadalika comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi jàngalee ba xattaa noddu liqaam yooyu yëpp donte nag dana am nu ñu wutee ci biir julli gi ci école yi ñii defee nii ñii defee nii waaye terewul lépp euh, source yi euh, te mooy euh, cosaan yi ñoo ko bokkale lii nag mën nañu wutee ci faro yi léegi nag téere yooyu di wax ci wàllu chariatu islam ci fiq malik bi xëy ni man moom laa jàng dégg nga moom laa gën a maîtriser ci yeneen yi ñoom dañ ne euh, jigéen baatam awra la warta yëkkatiku ñu na ah, ñu ne waaw ndax fekkoon ne dagan na mu yëkkati ko fenn kon mu yëkkati ko ci julli ñun ñëpp moo xam mboolem école yi jàngale diine lislaam mboolem madahib yi moo xam Malik la muy wala Hanbal wala Abu Hanifata wala imam Shafi'i ñoom ñëpp amul fenn fu jigéen di jullee fatiha mu koy wax ci kaw waxuma la saar wa jigéen du noddu te noddu góor a koy def te noddu jaamu yàlla la woote la ci julli gi jigéen du liqaam ci kaw moo tax boo demee boo demee Cheikh Khalil téere boobu ñu tuddee lawal asaani Cheikh Khalil égyptien bu mag boobu def ko def ne jigéen bu dee liqaam na ndànk wen aqaamat maratun serran fa hasanun la wax bi buy julli liqaam liqaam ji kenn déggu ko mu ne loolu dey lu rafet la luñ sopp la waaw kon nag gannaaw julli gi gën a foor ci jaamu yàlla jaamu yàlla yëpp gannaaw baatu seede yi julli moo ci gën a foor julli mooy pied bi nga xam ne moo téye diine lislaam bu mabbee diine ji mabbu bu taxawi diine ji taxaw man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax kon julli googu nga xay nii dafa foor moo teqale diggante jullit ak yéeféer yonent bi nee na li dox suñ diggante kéeféer mooy julli jullit bu dul julli rek na xam ne dugal nga sa bopp ci kéeféer waaw gannaaw nag julli googu moo gën a foor ñu ne jigéen fatiha di farata ci julli ñu ne jigéen du ko wax ci kaw jigéen du jiite ci julli dañ koy jiite wala mu julli moom rek waaw kon nag rawatina leneen loolu rek tontu nga na tontu na sa laaj bi waaw zikar jigéen mën naa zikar jàpp tariqa wala muy zikar turu yàlla bu ma doon waaye du nekk ci kaw léegi ñi nga xam mooy suñu sëriñ ci tariqa bi muy Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu jigéen daan nañ dem si wasifa waaye duñu wax ci kaw ba léegi boo demee ci mbooleem zawaaya yi wala ci taalibe tijaan yi fu mu mën a doon jigéen ñi bu ñu ñëwee ca jumaa ja ñi fekk ñi nga amee condition yi mën a tax ñu dugg jumaa wala jàkka bu ñuy wasifa wala ñu def si kar sa juma duñ wax ci kaw loolu kay kon tontu na laaj bi ndax julli ak sikar rek fi nekk inna salata tanha anil fahsha wal munkar wala zikrullahi akbar nga dem ci jamonoy sahaaba yi xam Aïcha yonente bi sallallahu alayhi nee na jël leen génn wàllu seen diine ci sayyidatuna Aïcha waaye Seydina Aïcha ah góor yi bu ñu ko daan laaj question dañ koy bind leen tontu ci kaw kon loolu rek tontu na ne jigéen baatam awra la waaw ah, Imam Malik doomam bu jigéen ba ndee ba am problème ci njàngale mi feebar dab ko doom daan na jàngale waaye dañ ko daan utal benn xijaab kon yooyu yëpp day tekki ne rek macha allah li ñuy wax fu wóor lañ ko teg te loolu lañ fekk mag ñi ndax mag ñi nag euh, loo ci mënta dégg euh, ñu fonk sunna lañ dañoo teg seen tànk ci sunna yuntu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax jigéen bokkut ak góor xam nga góor boo xoolee yaram wi li ci yaawra mooy diggante jumbax ba ak bëti oom yi góor mën naa julli sol tubay joo xawee nii muur na jumbax ba paase bëti oom yi mu julli mu wér donte sim nañ ko bu dee solu dara ci kawam waaye wér na ndax dañ ne sa awra yow góor mi nga tàmbalee sa jumbax ba ba sebate oom ya ñu ne jigéen ñu ne léppam awra la nderee xar kanam wi ak tenq li buy julli tànkam yi feeñ tànkam yi ndëgguli ci kaw sax eh, julli googu dakaa war a baamu kon yal na yàlla baaxal wala yal na yàlla nangu julli jigéen ñi suñ jigéen ñi doy na waar waar ndax jigéen dafa sensible li tax jigéen mënta jiite julli waaye yow eh, imagineel ñu ne imam bii jigéen la ak jigéen ni ko yàlla bindee forme formom ni mel mu taxaw ci kanam muru ko wala mu sujjóot waaye sëñ bi loolu <laughs> ñu ko mën a maîtriser bariwut de ba bariwut surtout am na ñoo xëy ni yàlla bindee moo tax ñu naan la dee leen muuru dee leen sol lu jot ndax macha allah neen yàlla bindee ndax am na loo xëy nii euh, sa bët bu ci tegoo rek léegi sa xel di ci liggéey nan ngay def ba jot ci tax ñu ne imaam bu mu nekk jigéen jigéen mënta jiite ay moroomu jigéenam jigéen mënta jiite ay góor jigéen mënta jiite kudul boppam ndax sensibilité bi nga xam moom la am yàlla moo ko def ci moom kàddoom day influence am na ñoo xam buñ déggee kàddu jigéen rek dañuy kontaan ba mën naa leen yóbbu ci mooy yàlla donte jigéen mën naa wax kàddu goo xay jaamu yàlla la lu baax la waaye yow mi koy dégg mën nga cee amee lu bon dégg nga boobaa day dugg ci baabu euh, saddu zaria boo demee ci usulul fiq maanaam euh, boo bëggee ray rab yi da ngay làqu ci garab kon boo bëggee bàyyi lu xaraam da moytu loo xam ne boo ca jaaree am ko ndax euh, influence bi yàq kàddu am na am na ko comme bëtam ni ko amee comme yaramam ni ko amee loo tax ñu ne kon kàddoom googu dégg nga moom it awara la da kaa war nëbbu même buy zikar wala mu jàng alquran xam nga nga gis jigéen ñi di dem ci concours alquran di gagné jàng ngeen ko d'accord dañ ko def rek ngir lan xëy na tolérance diina ji dafa am masala yoo xam tolérance la waaye amuñ base bu légal ñoom ñu koy def ne lii lii euh, amut bàkkaar dara newu ci dara newu ci amul kenn ku la koy dalay am na ñu bari dañuy wax dañuy indi lu ñu tuddee euh, dérogation mooy yombal yolombal ne jigéen ñi bu ñu leen jàngaloowul alquran musiciens yi chanteloo leen seen musique yi ñu loolu rek la ñu ne kon nañ leen jàngaloo alquran xam nga sama daara jaa ngi ni jigéen yaa leen gis dañuy jàngal alquran dañuy jàng ci kaw ci biir daara gi bu concours amee ñu dem waaye d'accord loolu dañ koy def rek ngir ah ngir rek motiver leen wane ne it war ngeen a mokkal alquran war ngeen a wax si seen làmmiñ yi alquran ak sunna yontu bi waaw war comme jigéen ñu def conférence da ngay toog ñu def conférence ay góor toog ca dégg nga kon boo xoolee foofa am am na njariñ te njariñ le moo ëpp ga rek ñu ne kon nañ ko yoolambal lii rek la waxuma na nag jigéen yoo xam day teg taabalam walla di wëy ci sikar ci di eh, biir góor ñi macha allah loolu yëpp mag ñi bàyyiwuñ ko fi jàngale wuñ ko fi waaw doonte nag mu jëg mu jëg jamono eh, lépp loo xëy ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi woon na ko jàngale ko mu leer naññ te wax na ba muy dem eh, tracel naa leen yoonu jub wu leer naññi guddi ga mu bëccëg gaa xem ci leer waaye nag a ah, macha allah ni jamono di demee rek nga gis ah macha allah waxuma la guddi ga di lëndëm de waaye bëccëg ga sax day commencé di lëndëm mag ñi it seen kër yi loolu lañ fi bàyyi woon waaye lu bari tey am na luñ ci yokk loo xamante ni mag ñi bu ñëwoon dañ koy dindi nag na nag macha allah moo tax ñi nga xay ñoo doonu kër mag ñooñu doonu diina ji wala ñu nekk ay boromi xam-xam. am droit di expliquer nit ñi waruñoo noppi donte nit ñi mënoo fexe bañ bàyyi ko waaye yow amoo droit noppi ndax yàlla moo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bon ngir yéeféeri bon bañal la nen eh, sa projet bi nga indi muy l'islam duñ ko nangu tax na ma noppi ñàkk wàccee six mille six cent soixante six laaya afa nadribu ankum zikra safhan in kuntum qawman musrifin kon tamit kon faw nit ñi danañ wax donte nag boo waxee bu dee téeméer ci neexoon kenn dana ba ñeneen ñi moom mënoo fexe fexe bañ bàyyi ndax it euh, ba yonent yàlla Muhammad jógee ngir jubbanti doomu aadama teg ko ci yoonu njub iblis dafa jug dugg ci liggéey yonent boobu ngir seet ni ko xajamalee ak ni mu ko ñaawalee donte yow mi koy def yow mënoo yàqal wala mënoo xajamal wala mënoo tilimal liggéey yonent waaye sa bopp ngay tilimal loolu rek bu ko defee mu jug nag noonu la duggee namit ci kër mag ñi dugg ci borom xam-xam yi léeg borom xam-xam wax loo xamee da ngay xam ne lii bakkan la iblis moo ko njar moo ko jaxase léeg kër mag mag ñi set wecci topp sunna ak shariatu am lu fo duggu nga xam ne li eh, iblis moo jug tabarakallahu ngir xajamal liggéeyam boobu liggéey boobu dafay yow noonu nga ko mën a déggee waaye daanaka eh, loolu mag ñi jàngale wuñ ko ndax mag ñi nekk nañ fa jóge fi mo su ñoo dee gis jigéen ju yor kurusam rek di sikkar sikkar su àjjuma wala wasifa di ko wax ci kaw waxuma laa nag muy sikkar wuy waxuma nag mu nekk ci diggante ay góor waaye it eh, mag ñi nekk nañ ba jóge fi macha allah même concours alquran yi sax macha allah waaye nag am na loo xamee ni jamono la waaye kon buñ ne diine la na bu am na loo dañ ne yombal la waaye bul na lii dara newu ci waaw toujours ñaari masala ñaar bu ñëwee am na njariñ waaye am na lor dañuy xool njariñ gaak lor ga bu ci ëpp mooy loolu la usul naan irtikaaban li axafi dararayni ñaari lor bu ñëwee dañuy xool bi ci gën a woyof jigéen ji mokkal alquran war kaa tari war kaa tari eh, ci eh, kanamu mbooloo ñu xam ne mokkalal quran ngir e, e, seede kon tare quran ci kaw te mu majeur te mu majeur laa wax kon boobaa xam nga lor la waaye lor googu moo gën a xoyof tare alquran ji alquran ji nga xamee ni macha ak shahada bi seede bi loo tax loolu it moo tax diine dang koy war a dégg am na yu baree baree bari tamit ah, da dang koy xam rawatina usulul fiqh kon fa tabaarakallaahu ah, war nañoo gën a veyaat nag surtout nag ñi nga xëy ñoo yor kër mag ñi bari na luñ ci dugal te nekku ci woon buñ noppi bu ko taalibe jar bu ko mbooloo jar bu ko alal jar waaw ndax kër mag ñi ñu ngi ko sampee diine ak sunna kon la ca la ca yokku rek du mag ña kon yow mii fi nekkal mag mi wala yow mi nekk borom xam-xam nekk ci kër googu lu métti métti rek man ngaa sibir ay saaga ay commentaire yu ñaaw ñu mën nañ laa sosal mën nañ laa wax xamoo dara waaye bu mu tax nga noppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na bañ na dof la dem nañ ba ne kii ma change rek lay def lu mu wax du dëgg kon kooku lu lu ko jaral ba diine yi taxaw seet wecc mu leer nañ waaye yow tamit buñ ko bëggee yàq xajamal kon na la jaral loolu kon loolu rek moo nekkoon sama wax ci loolu macha allah ñi ngi gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal ñu tawfiq ak taysir lépp lu ci leer ci yàlla la lépp lu ci lëndëm suñu gàtt xam-xam ak suñu ñàkk fasaaxa la di wax in uridu illa al islaha ma stataatu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa axir daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh